dañoo commencé ak waa UNACOIS mën naa la wax ne jàppoo bu bees euh, ñu commencé ko fàllu indi ñu fi ñu def fi ñetti fan bëkki démb démb ak tey bëkki démb consulté nañu luy toll ci téeméeri nit ak juróom fukk ak ñett démb téeméer ak ñeent fukk ak ñett tey jii wàccaguñu mais consulté guñu nañu lu mat téeméer mais li ci am solo mooy amuñu fi benn cas boo xamante ne nii cas bu cas bu garaaw la ñi fi am glaucome wax nañ leen ni désormais da ngeen am glaucome da leen jël euh, seen tuufaay ñi fi am cataracte benn cas lañ fi am cataracte du nord wax nañ ko immédiatement mu dem hôpital pour ñu opérer ko ñeneen ñi wax nañ leen ni ngeen suivre seen cataracte ni si des ñëpp nag ay problème myope di lañ am gis-gis bu jege wala gis-gis bu sori ñi fi am problème gis-gis bu jege jox nañ leen ay verre ñi fi am problème gis-gis bu sori jox nañ leen ay verre li ci particularité bi aussi mooy marché central war nañ gën a mën a xoolaat environnement bi parce que dese nañ set wula le maire wala waa jàppo parce que poussière bi ak salte bi bëri na fi trop te bët bi poussière bi daw du ci dugg naaj bi daw du ci dugg ngelaw bi ci daw ci dugg war nañ koy bàyyi xel ba environnement bu ñu nekk mu mën a nekk environnement bu set beneen chose bi am solo bi aussi mooy élèves yi ñëw nañ fi professeur yi ñëw nañ fi le proviseur ñëw na fi te dañoo ñëw indi seen i ngërëm parce que élève bi am mooy dix dem moom moo ñëw ba fii boppam am na ko am moins dix huit son père a appelé mais ki am moins dix foo degré entre reflet kii coûte moins plus de trois cent mille ñëw na fii di laaj nañ ñu organiser ñi pour mu gërëm leen il a trouvé ici les Emma et les autres cela veut dire que ni waa UNACOIS defal nañ waa Thiès lu am solo parce que tey jii dañuy wax RSE maanaam bénéfice bi nga am donc koo war a delloowaat population yi waa UNACOIS loolu lañ def tey jii. muy jàppoo bu bees boo xamante ni dañoo bëgg mu gën a law bu ci président àndee du yàgg dara dinañ dem marché mu santé mais bëgg nañ aussi ci collaboration bi ñuy defaale dépistage euh, cancer du sein col bu ñu bëggee sax mën nañ leen see booleel insuffisance rénale parce que léegi li ñuy lekk kenn xamul lan la. lii dale kenn xamul lan la. waroo toog rek ba dara jot la nga ne xaama ma jóg si dem seeti docteur war nga foo toll ngay nemmeeku sa yaram muy jàppoo bu bees yow Babacar xam nga ci dara li dimbali ci waa Thiès amul benn doomaanu Thiès bu ko def amul wax nañ ko ba tàyyi du maire du ministre di dëppale fexe nañ ba doomaanu Thiès yu bëree bëree bëri ñi ci am dafa jàngo jàngo ñi ci am ay jàngoro fexe nañ ba yombale leen seen faj wala ñu orienté orienté leen kon moo ku leen mën a faj ci loo xam ni lu dul luñ dul fay dara lay doon ci ñu bëree bëree bëri bëri structure sanitaire yu bëri orienté nañ leen fa di wax nag ni suñu jàppoo bi ak waa INACOI dinañ ko lawa ba yenn région yi loolu dañ ciy sant yàlla bu baax di jullit yonent bi sallallahu alayhi wa di gërëm suñuy waajur di sant suñu président national président Idi Thiam ndaxte lépp lu mu dugg rek mu jàppale ñu ca ba lu ñu ca bëggam def ñu def ko ci. lii nag comme li may wax toujours rek damaa jiite mbooloo mi waaye ëpp ma leen xam-xam ëpp ma leen xel képp ku am xam-xam am xel andil ci bureau bi nu waxtaan pour régler loolu benn xale bu ñu naan Fallou Ndiaye moo taxaw nii sama ginnaaw. ñew fi bi ni bëgg dem paraxaan ne ma man dafa am docteur bu nekk fi bu ma bëgg waxtaanal pour mu ñew pour euh, def fajal ñu suñuy bëss man ko ah loolu moom lu ma kontaan la lu ma sawar la waaye comme dañoo jug paraxaan te dama cee yor liggéey bu rëy eh, man na noo waxtaan buñ jógee ñu tàmbali ko yàlla dogal ñu dem ñëw tàmbali liggéey bi ñetti fan alxames ak alarba euh, alxames ak àjjuma di gërëm docteur Fall bu baakha baakha baax ndax dama gis ni mom liggéey bi daf ci am yene daf ci am yene bu baakha baax ndax daf ma wax démb ne ma gis na fi ñaari cas yoo ñaari cas rek jaralon na ma ñew fi kon lolu ma ngi ci sante ñoo ci sante bu baakha baakha baax di gërëm ñi tok fi ñepp autorité dëkk bi Ibrahim Ndaw nek bureau régional président Adja Fari jeng ak fami fi nek ñepp Adja Madeleine Diagne di sante wa mo sante eh, ki ñew na fi Adja Adja yasin di gërëm chef de quartier bi nga xam ne mooy sunu chef de quartier moom tey suba sax la la koy wax damaa tëdd ba guddi bi ma ne eh chef de quartier boobu xam nga affaire bi dafa jam ak poroxaan ji di laa woo secrétaire bi comme ñoo bokk dëkk ma ne ko fexeel ba chef de quartier bi ñëw chef de quartier bi ñëw gis nga président consommateur yaa ngi nii waxoon naa ko muy yaat ma gisee moom tim mi ngi ñëw nii toog te marché central ku ne xam na ne setul toppatoo wuñ ko maire bi toppatoo ko ni mu ko war a toppatoo te dafa war a topp invité woon naa ko sax ñu ne ma dafa tukki adjoint woo na ma léegi ne mi ngi ñëw dafa amoon teq teq waaye mi ngi ñëw waaye bu ñëwee dinañ gën a waxtaan ñu gën a toppatoo marché bi gën a toppatoo cet gi loolu itam wax dëgg yàlla dañ ko def li docteur wax itam ne euh, partenariat bi dana bu soob yàlla danaa ci waxtaan ak président national ndaxte secretaire général bu bureau régional bu Kaolack léegi la bi jóge moom tam dañ ne ko sax toogal danañ jéem fexe ba équipe bi ñëw Kaolack waaye moom xam naa ne euh, bëtam mën mënta muñ ñëwal na boppam Euh, euh, consulté nañ ko jox nañ ko ay weer ñibbi na léegi bu soobee yàlla naa wax ak président ñu jéem a jox ndax docteur bi am numéro am sama numéro ko defee ñu jéem a wër région yépp ñu dem ci ndax inaakuwa nekku fi rek pour commerçant yi inaakuwa dañ ne képp kuy jënd ak kuy jaay àdduna ku jëndul yaa jaay président consommateur yaat ma dañoo am jam ak salam démb ak bërki démb ndax ñun dañuy bañ ko jaay lu seer bañ ko jaay lu primé bañ ko jaay lu yàqu bañ ko jaay lu bon kon nak ñun mën nañoo mën a ànd ak consommateur yi ba pare bi président yi di caam ñëwee dafa jëlee poids ci informel andi ko ci formel loolu moo tax léegi dañuy avancé ñun tam jëm ca kanam ndaxte doo toog fi nga toogoon rek dañuy continuer bu soobee yàlla danañ ànd ak docteur danañ dem ci marché yi bu jógee fii danañ fexe mu dem moo sante dem garage dem marché ngelaw dem marché grand dem marché Thiès yépp bu paree buy génn Thiès door a génn Thiès mais nag mbay ci sama tànk ba lay génn Thiès moom marché yëpp na ci dem bu soob yàlla loolu docteur nee na bu ma ci àndee na ko def lool ni ma ànd ñu indi ko fii ci biro bi noonu laa ànd ñu yóbbu ko Mosonte yóbbu ko Grand Thiès yóbbu ko Ngelaw yóbbu ko ci marché yi nekk ci garage yóbbu ko ci Sénégal yëpp ndax su ko transporteurs yi ak commerçant yi benn lañu. ñoo bokk lu ñu bëgg bokk lu ñuy bañ kon lu ñëw UNACOIS dafa war a dem ci commercant yi dem ci transporteurs yi dem ci consommateurs yi dem ci ñëpp. man France laa tudd Ndeye Fary Dieng euh, bu Thiès bu UNACOIS bu Thiès ci wàll jigéen ñi. di dégg trop nag ci jigéen ñi ndax jigéen ñi wuy si nañu en masse respecté nañ leen leen waxoon ñëw nañu consulter faj seen wér gu yaram. di kontaan aussi ci UNACOIS ndax UNACOIS xale bi lu mu ndaw ndaw am na esprit de groupe esprit li nga ku ne la nga yéene sa bopp nga yéene eh, say membre yi lu itteel askan bi lu doxal askan bi rek la UNACOIS di dox lu lu luy jariñ askan bi rek ci la UNACOIS di yëngatu moo tax moo waral sunu consultation bi tey ñu def ko jagale ko waa askanu cees man boo gisee keroog ouverture bi bala may wax sax ñu consulter man affaire jigéen ñi laa leen njëkk a wax ndax affaire jigéen ñi nu ma soxlaa soxal la ndax jigéen ñi ñoom ñëpp ñoo am léegi feebar bu ñuy jooy te metti na cher na te kon ku leen ci jàppale daanu sant yàlla bu baax di leen di sant nag koñ bii ma dëkk ndax koñ bii ma dëkk dama leen a yoreel àq na sama njaboot dafa nekk si ñoom di leen yàqal te ni un te liñ leen sama njaboot di yàqal yépp man xam naa ko gis naa ko te maa ngi leen ciy remercier bu baax lenn rek la inaa quoi d'accord membaram buy tooñ boo loo nekk te tooñoo rek inaa quoi dana la accompagner ba nga sës ba nga xam ne am nga kilifa te jàpp na ci bu dëgër lenn rek la d'accordul kuy tooñ di ko mbubboo depuis daam bi mu nekkee ci boppu inaa quoi vraiment dafa am collaboration boo xam ne c'est une collaboration franche avec les consommateurs alors mu nekk loo xam ne nag chaque jour nekkul lu ñuy wax rek waaye da koy jëf lépp loo xam ne mu ngi koy def tant ñoo ngi fi daam dina ci waxtaan ak consommateurs yi ite itam mu am changement bu rëy boo xam ne indi na ko depuis bi ko tegee ci bopp bi fii au niveau euh, di grand marché centrale parce que lépp loo xam ne moo doon naqaru consommateurs yi ñu di ko am mu jëm ci jaaykat yi nga xam ne ñoo fi nekk soit muy prix bu ñu yokk wala ñu jël jaay produit boo xam ne produit périmé la loolu yëpp daam dafay dafay am sax moom wax boo xam ne da wax dafay wax ni toujours ñun ñoo njëkk nekk ay consommateur ba tax na loolu bokk na ci dafa mel ni moom toujours dafay taxaw place bi xam ne ñun ci la ñu waroon place donc mi ngi ñuy accompagner bien que ñun aussi ñu ngi accompagner UNACOIS ci liggéey bi nga xam ne mu ngi koy def au niveau de la région de Thiès kon bu taxawee tey mu ne dafay organiser lu mel nii pour jàppale askan wi mais loolu du ñu bett ci moom parce que xam nañ ni moom maturité am ak fullaam ak faydaam ak ni mu yoree Unacois en tant que taalibe Serigne Touba vraiment loolu ñun dañuy am mbégte ak kontaan ñëw teew ci fekk si ko santaat ci yàlla bu baax baax. ma soble bi moom comme que importateurs yi. vraiment ñoom dañu taxawoon ñun suñu li ñu ci war a dox wala ñu wax ko ci mooy ñun ñu consommer local bi ñu ubbee frontières yi wax dëgg yàlla jamono boobu dafa fekkoon soble bi nga xam ne mooy soble mbay bi fii dafa jeexoon mais comme soble bi fii ñu toll ni tembe euh, ñoragul comme ni mu te itam wax nañ ni am na soble boo xam ne mu ngi ci biir port bi te loolu dañ ci interpeller vraiment le ministre du commerce mu wax pour que soble boobu nekk ci biir port bi ñu génne ko jox ko askan parce que soble bi fii mu nekk prix bi mu toll ay 500 vraiment vraiment ñun

ñoo boot marché bi marché bi mu suñu biir quartier. alors initiative bi nag dañ koy rafetlu gannaaw bu ñu santee yàlla ñu ngi rafetlu initiative bi di gërëm euh, docteur Fall ak euh, équipe am di gërëm président Dame ak euh, équipe am monsieur Niang di gërëm UNACOIS bépp ndax affaire bi aussi booy seet defaluñu ko rek commerçant yi parce que population yi bénéficié wu nañ ci visite bi.

comme ni ko docteur bi waxee legui nak dama gis xawna interpeller autorité sanitaire yi interpeller aussi maire bi surtout maire bi quartier bi y a beaucoup de pollution quartier bi setul y a la mauvaise odeur ak tam poussière yu bari yi li ko wane mooy li fi ñew ci ay consultation hôpital mooy kenn xamul ñu mu doon yeneen feebar tam mu ngi fi donc ñu ngi ñaan autorité yi ñu jël euh, problème de santé bobu en compte

population yi man ci bénéficier wu comme ni ko soxna si waxee léegi Dieng mu ngi soxna kii Dieng ma soxna Fari Dieng mu ngi jéggalu bu baax population yi waaye ñun ak yéen ay mbokk lañu parce que dëkkandoo moom mooy mbokk lu ci bari ci yéen da ngeen di jóg 6 heures du matin 7 heures ngeen ñëw ci ñun suñuy buntu kër rek suñuy loolu 20 heures ngeen fiy jógee temps bi ngeen di passé ak ñun doo leen ko passé ak seen i famille donc ñun ñëpp ay mbokk lañu donc mënuñu dul rafetlu lii di ñaan yàlla mu continuer

yalla yalla yàlla len seen liguey parce que ñu ngi xalaat tam ñoom ay bénéfice rek taxu len jóg parce que li ñuy béni li ñuy bénéficié tam ñu ngi koy delluwaat kon ci biir quartier bi waaw ñun lu ñu dugg rek ñun conseil de quartier te mom taxaw na ci japp nek à notre côté kon nak loolu ñu ngi koy rafetlu di leen gërëm di gërëm yëpp. ñu ñëw tey représenter monsieur monsieur le maire Lamine Diallo nga xam ne dafa am empêchement man nag fii fi dama fee ñëw ci deux casquettes ndaxte man maay secrétaire général régional des femmes de l'UNACOIS ensuite ma nekk euh, conseil municipal ñu jox ma commission àll et kon ma yëf fi yaakaar naa ne ku def man nga ko defal ndaxte yaakaar naa ne ñoom sax ñi ko def xamuñu popularité biñ ci taux populateur popularité biñ ci am ndaxte dëkk bi ko wax ñu ne consultation waa inaakuwaay consultation waa inaakuwaay nit ki dina def loo xam ne sax lu fa mu yegg moom du ko xam ñun nag. si côté mairie bi ñu nekkee duñ def lu mooy accompagner leen luñ jog ñu jóg ca luñ ànd ñu ànd ca yàlla def na partenariat naa UNACOIS yàlla daa def ne ñun yàlla dañoo boole ñu mel na ñu bokk ndey ak baay président Dame li muy def ump ma comme man li may def ump président Dame kon daal li ma gis mbir yi mooy def ci ak sotti ci consultation bi nag dañ ko war a gën a mën a yaatal sax ndaxte tey jii jigéen ñi am na loo xamante ni ñu ngi koy jàmbat comme euh, cancer de sein cancer de l'utérus yooyu yëpp jigéen ñu ngi koy jàmbar ba pare war ñu tamit nit ñi hôpitaux yi en général dañuy soxla deret ñuy def don de sang ndax foog naa commerçant yi bu ñëwee kenn ku ne joxe deret yaakaar naa ne hôpital bi dina fees del ak ay poche waaw léegi bu ñu jëlee casquette madame le euh, léegi wax na ne marché bi seetul. waaw waaye yéen mairie bi effectivement ñàkk ay oto moom bokk na ci. mais ñoo ngi def suñu kéemtalaay kàttan ndax du ko gis xëy suba di nga gis camionnette bi ñu am di roñ balit mi xam nga ne camionnette balit tax ko woon di jóg mais ñàkk moyen moo tax ñàkk oto moo tax ñu jël camionnette bi saa bu ñu xëyee liñ ci man ñu def ko ci ñoo ngi ciy def lu ñu man de xanaa kay mbalit mbalitu marché bu dee mbalitu kër moo lay lakkal asamaan mbalit moo xam ne marché ñëpp di fa daje kenn ku ne di sotti sa mbalit mais ñoo ngi ciy jël lu ñu suñu maximum possible problème désengorgement bi tamit man dañ maa indi jox ma commission almasi jox ma bureau matagu deux mois mais ñoom daam ñi xam nañ ne su ma xëyee ci la réunion su ma gontee ci la réunion ndaxte voie publique kenn du ko occupé oto du jàll leneen du jàll nga tëg fa sa table tegoo ko fenn nit ki da ngay wax mu waxanteeg moom dëgg maa ngi ci nag ci laay xëy ci laay gont ci laay réunion suba ci laay réunion bëgg naa tam ñëpp dugal seen loxo ba bu ëllëgee bu ñuy def désengorgement kenn du plaindre ba mbaa nga ne nii mbaa nga ne naa mbaa waxuñu ma ko ndaxte loo xam ne la jaadu Nous étions à, à Tobatou le week-end passé avec le maire. L'INAQUA nous a invités par l'entreprise de, de pour que nous puissions organiser en trois jours des consultations ophtalmo. Oh, cette fois-ci, c'est uniquement l'ophtalmologie. Alors, le premier jour, nous avions eu à consulter 153 cas. Le deuxième jour, hier, nous étions à 163. Aujourd'hui, ce n'est pas encore la descente, mais nous avons pu consulter 147 cas. Alors, il faut remarquer aussi une chose, que d'habitude, les commerçants, en tout cas qui sont à Thiès, sont soit dans des salles trop éclairées ou des salles mal éclairées. Il faut dire aussi qu'au niveau du marché central, il n'y a pas d'assainissement euh, parce qu'il y a beaucoup de poussière au niveau du marché central. Donc les autorités la mairie ou en tout cas euh, l'UNAQUA doit s'occuper de l'environnement au niveau du marché central. Et parmi donc euh, les cas que nous avons consultés, Dieu merci, nous n'avons pas vu un cas dangereux, un cas grave. Nous avons eu que peut-être ceux qui ont la myopie, juste ça. Nous avions reçu aussi beaucoup d'élèves. Beaucoup d'entre eux ont des degrés allant de moins 7 à moins 18. Machallah, Dieu merci, ils ont tous eu leurs lunettes. Certains d'entre eux même sont venus ici remercier les gens de l'Inakwa. À vive voix, ils sont venus ici pour remercier les gens de l'Inakwa, y, compris même le proviseur. Il est venu ici parce qu'il y a beaucoup de professeurs qui sont passés par ici se faire consulter et on les a donné des lunettes. Ils ont fait le tour pour remercier le président et, elle, les, commerçants de manière générale. Il y a plusieurs établissements, disons, installés dans la zone. Oui, il y a beaucoup d'établissements installés dans la zone et nous, avons reçu au moins 100, élèves, au moins pour les trois jours, 100 élèves. Cela veut dire que euh, aujourd'hui a fait un geste extrêmement important à l'endroit des populations. Parce qu'aujourd'hui, on parle de euh, la responsabilité sociétale des entreprises. C'est-à-dire ce que vous gagnez, vous devez en contrepartie réinvestir à la population. C'est ce qu'aujourd'hui l'inaqua a fait. Et nous remercions naturellement le président Fallou qui nous a amenés ici et tous les membres de l'inaqua et naturellement l'équipe aussi de l'OADAS euh, Madame Tam, euh, son fils et Madame Diakhaté. Est-ce que, vous pensez peut-être revenir, puisque quand même le marché central, c'est un très grand marché, et il y a d'autres marchés à Thiès Oui, nous venons de, collaborer avec euh, l'UNAQUA, et nous allons tout faire pour faire le tour des marchés. Et très prochainement, le marché Moussanté, si le président le veut bien. Mais mieux encore, nous voulons, vous l'avez vu, vous, Babacar, organiser des dépistages en cancer sein-col. Nous voulons organiser ça avec les gens de l'UNACOA, Parce que nous, nous faisons le, tour du Sénégal. Mais puisque maintenant, nous sommes des Thiès, nous sommes fils de Thiès, nous devons prioriser les Thiessois. C'est pourquoi nous allons donner une large part euh, aux gens, de, aux, commerçants de la, de, de, la région de Thiès. Vous voyez, l'UNACOA, c'est une institution et que le Sénégal est un pays émergent. donc, pour notre institution aussi, nous devons être une institution émergente. Quitte à ce qu'on a eu la chance d'avoir euh, un de nos, euh, du mouvement des jeunes, on nommé Fallou, qui est là derrière nous, qui a eu l'initiative de rencontrer le docteur Fallou parmi ses tournées au niveau de la région de Et sur ce, ils ont tombé d'accord pour qu'on puisse créer euh, des journées de consultation au niveau de l'INA. Sur ce, euh, ils sont venus voir le président et ils sont tombés d'accord là-dessus. Et que sur ce, c'est à cause de cela qu'on a eu la chance d'avoir euh, consulté pas mal de gens depuis le mercredi jusqu'aujourd'hui, le vendredi. Et que nous remercions le docteur et son équipe parce que vraiment, on a constaté que vraiment, il a fait beaucoup de choses à travers nos membres et à en dehors de nos membres. Parce que tous ces gens qui sont, sont consultés ici ne sont pas tout court au, sein de l'INAPA. Il y en a des commerçants qui sont venus aussi au sein de l'INAPA pour se consulter. Donc, c'est ça. Même les élèves, parce que au niveau du marché central, il y a pas mal de, CM qui sont autour du marché. Et tous ces élèves qui ont des problèmes de, pigeons sont venus voir le, docteur et ils ont été consultés. Même le, professeur proviseur d'un des CM ici est venu euh, remercier le docteur et le bureau INAQUA. Même les enfants aussi qui ont été consultés sont venus ici remercier INAQUA et son équipe. On est prêt à collaborer avec le docteur et son institution parce que ça, l'INACOA n'est pas devant nous ou bien d'aller euh, euh, voyager et revenir. On doit faire des, innovations et que c'est ça, ça partie des innovations de l'INAQUA. Et nous avons encore des idées de créer d'autres perspectives à travers des actes comme ça par rapport à, la population. Vraiment, euh, nous remercions aussi d'une part de plus euh, M. Fadou c'est notre enfant, euh, c'est notre fils, mais c'est un boss qui a de bonnes initiatives. Et on a encore envie de faire des tournées au niveau des, euh, des marchés de la région de Thiès et le président est tombé d'accord avec le docteur pour qu'il puisse faire des tournées au niveau de la région à partir de Monsanté, marché euh, euh Garoutière et ainsi, de suite. En tout cas, on est prêt à collaborer avec eux et cette collaboration, on essaie de la pérenniser pendant longtemps. Vraiment, depuis qu'il est à la tête de l'INAQUA, il a toujours prôné euh, accompagner les consommateurs. C'est pourquoi nous aussi, toujours nous sommes à côté de lui. Parce que vraiment, euh, il mène une bataille très importante. Parce que Adam, toujours, il a toujours intérêt pour que vraiment ces commerçants, que lui, il est leur patron, vraiment, ils ne veut pas qu'ils vendent des produits périmés. Il ne veut pas qu'ils vendent des, qu'ils augmentent les prix des denrées de première nécessité, toujours il est à côté des consommateurs. Et que il, toujours il est en train de sensibiliser vraiment ses militants, alors ses compagnons au niveau du marché central. Donc, euh, quand il organise ça, ça ne nous surprend pas. Vraiment, nous sommes très contents et très fiers d'être là aujourd'hui avec son adjoint Adamania, vraiment, et tous les membres de l'INAQUA, vraiment l'accompagner sur ce geste. Vraiment, nous apprécions beaucoup vraiment ce que Dame a fait aujourd'hui. Nous interpellons le ministre du Commerce parce que vraiment, toujours les importateurs, euh, l'oignon local, alors euh, actuellement, n'est pas encore sur le marché. Donc, ils n'ont qu'à ouvrir les frontières pour qu'on continue de consommer vraiment l'oignon importé et qu'on nous dit même qu'il y, a des, de l'oignon euh, qui est dans le port. L'oignon là qui est dans le port, ils n'ont qu'à faire sortir l'oignon là et le distribuer au niveau des commerçants pour qu'ils puissent remettre ça aux consommateurs. Parce que ce n'est pas normal qu'on voit aujourd'hui le prix de l'oignon à 500 francs ou au prix de 500 francs. Ça vraiment nous le regrettons vivement. J'étais venu ici accompagner ma soeur, Madame le maire qui, comme vous le savez, est la présidente de la commission à au niveau de la mairie de Kiesna. Elle est également membre du bureau de l'UNAQUA Et moi également, en tant qu'ancien membre de du bureau de l'UNAQUA ça me fait un grand plaisir d'être ici à la suite de l'initiative du bureau de l'UNAQUA pour, faire, pour organiser ces consultations gratuites, qui est une heureuse initiative que nous, saluons à sa juste valeur, parce que nous savons le niveau quand même euh, euh, de, maladies atteintes, qui, qui, qui a atteint les populations, de telle sorte qu'aujourd'hui, en plus des difficultés qu'il y a au niveau des familles, c'est une heureuse initiative que nous serions véritablement à sa juste valeur. Et là, je félicite, vous me donnez l'occasion pour féliciter à nouveau le président Dabdiagne et son équipe. Et en plus, euh, prier que cette initiative s'élargisse au niveau de la commune de Thiestor. Également, il faut dire que malgré les efforts fournis par la mairie, il faut véritablement accepter les difficultés, les difficultés qu'il y a au niveau des ordures par rapport aux maigres moyens de la commune de Thiès Nord. Malgré tout ça, on, a, pris un, certain nombre d'initiatives bon, qu'il faudra quand même augmenter et améliorer par rapport aux moyens qui sont mis pour quand même régler ce problème des ordures. Mais nous nous en attelons et j'espère que dans les années à venir ou bien au plus tard dans les mois à venir, nous aurons trouvé une solution définitive à ce problème.